dóoru ji suuf loolu buñ ci duggoon ba suba benn par benn lam def fuuta lam def fii ci Saalum li def fii ci mbaar mi ñu ngi ko indil ci ay dof yoo xam ne dañ leen a jéng ba ci am na koo xam ne ñun boogi lañ ko xamee woon booba ñu ngi jàng ci daara ji mu naan boogi boogi suma boogi dal Banjul la dofee woon ñëw booba iyaan caamang fi ñu koy wax cerno mu bind saafara jox ko Baay Alaaji Ibrahima fii tey jumaa ji nekk booba am na tiwil bu fa nekk ca pantre ba ñu tëj ko fa mu ne ana Ibrahima demal jox ko dof bi mu naan ko bu ko naanee dana wér mu ñëw rek dof bi pel saafara si rek pes Baye El Hadj Ibrahima <laughs> Baye El Hadj Ibrahima daw ñëw ne ko ah Baye kee kenn mënu koo jege day dóore mu bindaat beneen saafara jox ko Thierno no mu ne ñas mu ne ko demal jox ko dof bi mu ne ah, bay na maa dégg ne day dóore mu ne ko demal du la def dara yaan daa di dem ba mu demee ba jub dof bi dof bi di fecc naan ko Cerno Cerno suma Cerno Cerno Cerno Cerno suma mu jox ko saawara si mu naan ko du sotti ci yaram keroog sa mu ne pelek ñu génne ko foofu mook Baay Alaaji Ibrahima ñoo mbokkaan lal mu ñuy tëdd ba nim ñibbi Banjul am na doom joo xam ne moom sàll la santoon am na suñ benn ziyaara ci jamono suñ papa mu toog ci turbin bi Ahmed Khalifa ne ma xam nga boogi ma ne ko waaw mu ne ma kii doomam la mooy ambassadeur yi Gambie Sénégal Dakar foofu la jógee ñëw ziara si xam nga barke waliyu day topp ba ci sët sëtaat ah xam nga saafara bañ ko joxoon du saafara net ci <laughs> faj ko dafa defar càllalaam lépp kon xalifatul haaji Muhammad wilaaya gi nekk ci moom ak xaasiya bi nekk ci moom sax wax na ko mu ne lanaa xusuusiyatul uzma allati qasurat min duniha himmatun min arfay rayman mu ne xaasiya bi nekk ci man xaasiya bu mag la boo xam ne yittey doomu aadama yitte ji ci gën a kawe mënu may xaasiya boobu kon atu machiatullaahi la moo seet kum soob mu def ko ci moom mu ne bam ganee àddina ca ngoon soosu ngoon ak àjjuma gi la yonent bi sallallahu ñëw ci baayam baayam ne ko man de am naa gan yow laa ko tuddee mu ne ko indil ma ko mu indil ko ko mu taf ko ci dënnam bu yàgg jox ko làmmiñam mu màcc ko xëy na loolu moo sol maam xalifa xam-xam bi nekk ci moom mu doon koo xam ne mbindam mënoo cee génne benn yàq du ci grammaire du ci rhétorique diggante figir de style nag ay parabole ak métaphore ak catachèse ak yooyu yëpp dafa fees ci mbindam yi ba am ci boo xam ne bu tumuranke la mooy palindrome am na ñu jàng tubaab ñu bëri sax xamuñ ko mooy ini kaasu maa laa yokkas xam nga arab da ngay bindee ndeyjoor mu dem càmmooy français da ngay bindee càmmooy mu dem ndeyjoor nga defar benn weer nag benn baytu boo xam ne boor bu la neex nga jàngee ko waaw mu ne lamma lamma lamma daja ah, mu ne lamma daja ashirun li tayfi qultu lahu hal talqa fi talalin rashan yajid amali boo ko dalee ci amali googu loolu la lay jox itam exemple bi tubaab di joxe ci Petit Robert mooy Ésope reste ici et boo ko bindee Ésope reste ici et boo dalee ci repose itam jam ni Ésope rest ici et repose la lay jox kok mooy palindrome bind